bokk yi ñuy seetaan ci réew mi ak biti réew yëpp ñu ngi leen di nuyu tey jii nag ñu am gan bu cher ci gan bu mag gan goo xamante ni ndamal Cees mbooleem Cees waay yëpp ak fu ñu mën a bokk ñu ngi koy bëgg ci yaram ak tegginam ak dalam ak nangoo liggéeyam ak mën a jàppale ñu naan ko Abdoulaye Dieng ak jiite benn mbootaay bu ñu naan si siggi jot na ndax siggil na ko yéen waaw siggi jot na ndax siggi na ndax siggil na kenn ku ci nekk yaa ngi wër kenn ku ci nekk am na loo jàpp waaye sunu borom subhanahu wa taala nee na maay borom nguur qul illahumma malikal mulk tuutil man tasaw wa wa tu'izzu man tasaw wa tudillu man tasaw bi yadika alxayru innaka ala kulli shay'in qadir wax yàlla. ñi gëm yàlla lay waxal nag. wax ñi gëm yàlla bu yàlla ne yàlla dara dañuy. kon ñëpp nañ dem wuti te ñëpp dem woote ci. te bañ a taal bañ a yàq violence baaxul. man am na ay réew yu ñu may woo de te réew moom moo réew yooyu ñoo gën a réew ñoo Sénégal. waaye mun ñoo am dara ngir ñàkk jàmm ak insécurité. Mm-hmm. gis nga lu jafe-jafe mooy hydrocarbure mooy problème bi mm-hmm. maa ngi koy wax ak nit ca Nairobi loolu yàggul man ko problème bi muy hydrocarbure bi ci dugg ku ci nekk am ñu nekk sa ginnaaw waaye nañu teey ndax amuñu ko woon muy dox kon buñ ko bu ñu suñu bopp sénégalais yi nañu xool kay kan la war a voteel xool ku ñu war a àndal xool ku ñu jàppale mooy defar réew ku nekk na sañ nga ñu diwoo ma ma neex waaye na nga xamante ni nañ ko def ci yar ak i teggin ak dal parce que réew mi loolu la laaj suñu fexe ba taal suñu réew mi fu ñu koy waxee duñ ko xam kon loolu euh, sëñ Abdoulaye yow mi nga xamante ne yaay jiite mouvement sigi sigi jot na te nga siggil ñëpp nag dégg lool kontaan nañu lool ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa yi ci jàmm. Euh, euh, sunu professeur di sunu sëriñ di sunu xarit di sunu wëlëre. suñu kilifa professeur ba Faye ñu ngi lay nuyu di la sant di nuyu sa njaboot gi nga xamante ni ñoom lañ fi fekk si teeru bi ñu teeru kontaan nañ ci ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ndaxte si wàll bi ñu jëm euh, presque ñu def vingt et un jours de campagne mm. deux jours rek a ci des wala benn fan suñu xel da si dal suñu xel dal na si ndax ñëw bi du ñëw si yow nga dalal ñu jox ñu ay orientation si jàmm ak dal nga jox ñu ay orientation ngir jàmm ak sécurité ndax réew mi réew jàmm la ay mag ñoo ko sos donc kenn mënu koo yàq moo tax tey bi ñu demee ba egsi fii ku nekk nag ki wax mais li wax rek yalla moy joxe nguur mm. te juróomi candidat yep mm. ku ci nek mm. genn nga waxtaan ak ñi nga wara waxtaanal ñun de dañu am yaakaar rek ak njort ne fiñu far moy jàppale le président Macky Sall am nañ njort ak yaakaar ni liggéey na te di ñaan rek yalla jox ko ndam li eh, yéen nag mom comme ni ma ko waxe rek ñaan rek li ñuy ci yeen réew mi am jam, réew mi am dal kaddu nak yi nga wax ci man euh, ci yow la té yene ñuy conseiller di ñu orienté di ñu teg si yoon man nak ma nekk ci langue gi amana bu ma si gënul nekk ndaw ñi ma ci gëna nekk ndaw du bari te kilifa yi fi nekk yépp wax nga ko jaar nañ fii seere si man ay kàddu cant ak ngërëm mais kàddu yooyu yëpp dama koy jël delloowaat leen ko ku si mel nii wax nga ko la ministre Ramatoulaye Gueye benn yoon xaw ma ñaari yoon la ñu gisante wante estime bi mu am si man am naa ko fukk parce que femme de valeur la femme de vertu la donc ñu ngi koy remercier di ko féliciter liggéey bi nga xamante si mu ngi koy def fii ci Thiès jàppale président Macky Sall mais aussi sunu sœur Ndeye Tické wax nga ko. l'honorable député Abdou Mbow. sama frère ni Diouf ak ñeneen ñi nga xam ñëw nañ fi. am ay kàddu ceede si seede ngërëm ñu jël teg ko ci man si ñoom la. xamal ni rek euh, ni ñun de ces rek moo ñu ñor. Euh, askan bi moo ñu ñor. lépp lu ñu mën ba jàppale askan bi. def ko te yàlla tax. dañ koy def. te loolu it euh, yéen di ay kilifa diine yéen ñu si orienté diñu si jox ay tegtal ba ñu mën cee jàpp bu baax a baax donc daal ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla di lay yóbbante ay cant ci soxna Aminata Touré si pas-pas bi nga xamante ni am na ko ak couleur yi xam ne am na ko sa diggante ak yow